tëbës ki ñëw naati noo ngi teewe kooti bu wér te am na kat gaayu sant daalan war tëbës ki ñëw naati noo ngi teewe kooti bu wér te am na kat gaayu sant daalan war bisam bi fii lanu waccoona njaram ni melas del seeti fekk nu feeku cant noo gaña ndar suunaa ngi saañoo ngi gerte ngi përee nga ca kaw nuy dund kay mu ci man xoom ak tawat lu ko jar tey nuyu mbokki taalibe yi yëpp. jiital ci nuyoo bi nag sunu kilifa gi teew. ñu jiital ci nuyoo bi sunu kilifa kii fi teew. sëñ Mouhamadou mi. di sëñ Mouhamadou Mbacke mi. sëñ Ibrahima di rakam. ak sëñ Ibrahima Mbacke di rakam. leerug Touba. ñi fi nekk di seen njaboot. ak ñi fi nekk di seen njaboot. dana ko sëñ aboom sëñ siidi mi. dana ko ci sëñ aboom sëñ siidi mi. sëñ Saalihu. ak sëriñ Saalihu Mbakke. sëñ Ahmadu. ak sëriñ Ahmadu. ak ñi fi nekk ci njaboot gi yëpp. ak ñoom sëriñ Saalihu ak ak ñi fi nekk ci njaboot gi ñëpp. nuyu kilifa yi fi nekk yëpp. di nuyu kilifa yi fi nekk yëpp. magi taalibe yi fi nekk yëpp ñu ngi leen siyaar di leen nuyu. magi taalibe yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di siyaar te di leen nuyu. gannaaw bu ñu nuyoo nag sëriñ Seexuna mi nga xam ne mooy suñu kilifa fii ci dëkk bi. gannaaw bi ñu nuyoo sëriñ Seexuna Mbakke mi nga xam ne mooy suñu kilifa fii ci dëkk bi. te am ngant moo ko tee teew fii. te am moo ko tee teew fii. ñun ñoo fi daan bokk di teew. ndax ñoo fi daan bokk di teew. ñu di ñaanal ak wér. ñu di ko ñaanal ak wér. waaw di siyaare mbokk yëpp. mu ne mi ngi siyaare mbokk yëpp. di baalu àq ñëpp. di baalu waxtu wi dafa xat nag. waaye waxtu wi dafa xat nag. waaye ci ndigalal sëriñ bi. waaye ci ndigalal bi. ñu tënk kàddu yi rek. ñu tënk kàddu yi rek. kàddu ci xutba bii ñu doon jàng léegi. kaddu yi kaddu yi tamit ci xutba bii ñu doon jàng léegi. ci lañ koy jukkee. ci lañ koy jukkee. ndax xutba bi sëriñ bi moo ko bind. ndax xutba bi sëriñ bi moo ko bind. te ay digle ki tere rek la ci def. te ay digle ki tere rek la moo la ci def. ak i jàngale. ak i jàngale. leerug Tuuba. lim ci digle lépp itam. lim ci digle lépp itam. weesuwul jaamu leen yàlla. weesuwul jaamu leen yàlla. ragal leen yàlla. ak ragal leen yàlla. يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم ittaq illaaha haysu kunta ittaq illaaha te loolu mooy ndigalal yàlla ci ci ba àddina sosoo ba nëgën te loolu mooy ndigalal yàlla ba àddina sosoo ba julit mu ne julit mu ñañu jiitu ñañu jiitu ak ñun ñii ak ñun ñii ak ña ca kanam ak ña ca kanam loolu képp leen yàlla digaloon loolu képp la leen wa anna haasihi ummatukumu wa anna haasihi ummatukumu ummatan waahidatan ummatan waahidatan wa ana rabbukum wa ana rabbukum fattaxoon fattaxoon wa ana rabbukum wa ana rabbukum fa'budun fa'budun loolu mooy ndigal yàlla loolu mooy ndigal yàlla moo nekk ci xutba bii loola moo nekk ci xutba bii ñu doon jàng léegi loolu rek lañu sëñ bi soññi loola rek lañu sëñ bi soññi góorgóorlu ci farlu ci suñu borom bu baax góorgóorlu ci farlu suñu borom bu baax farlu ci jaamu yàlla bu baax farlu ci jaamu yàlla bu baax xam ne jaamu yàlla ku ko sàggane te xam ne jaamu yàlla ku ko sàggane sàggane woo ko sa bopp nga sàggane sàggane woo jaamu yàlla sa bopp nga sàggane waaw mbindeefi yàlla yëpp dañuy jaamu yàlla mbindeefi yàlla yëpp dañuy jaamu yàlla ba ci njanaaw yi ba ci njanaaw yi dañuy jaamu yàlla dañuy jaamu yàlla ci leerug Tuuba te mbindeef mu ne te mbindeef mu ne xam na na muy jaamoo yàlla xam na na muy jaamoo yàlla yàlla ma muy jaamu itam yàlla ma muy jaamu itam xam na nam koy jaamoo xam na nam koy jaamoo waaw moo tax mu ne alam tara anna allaha looloo tax mu ne alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi wa tayru saafatin wa tayru saafatin kullun qad alima salaatahu wa tasbihahu qad qad alima salaatahu wa tasbihahu ñëpp ay jaamu yàlla ñëpp ay jaamu yàlla ñanaaw yi sax xam nañ ni ñuy jaamoo yàlla ñanaaw yi sax xam nañ ne ñuy jaamoo yàlla kon mu kallaf kon nag mépp mu kallaf kon nag mépp mu kallaf ak lu mën a ittewoo ak lu mën a ittewoo war na caa war naa jiital ci itteem war naa jiital ci ay itteem. xam nu muy jaamoo boromam. xam nu muy jaamoo boromam. ak jaamu boromam. ak jaamu boromam. wallaahu alimun bimaa yafaloon. wallaahu alimun bimaa yafaloon. ne suñu borom it umpaliwul dara ci ci ci jaam yi ni ñu koy jaamoo. waaye suñu borom tamit umpaliwul ja umpaliwul dara ci jaam yi ni ñu koy jaamoo. <coughs> jaam bu ne na nga sa diggante sa borom leer na sa borom nañ. jaam bu ne sa diggante sa borom leer na sa borom nañ. Ah, kon ñu farlu ci jaamu yàlla bi bu baax. kon nañu farlu ci jaamu yàlla bi bu baax. lii ñuy def jaamu yàlla rek moo ñu fi dajale. ndax lii ñuy def jaamu yàlla rek moo ñu fi dajale. julit bu ne sa diggante sa borom julit bu ne sa diggante sa borom <clears throat> sa tolu sa tolu bop la sa tolu bop la bo xam boko boo yow lay jëriñ bo xam boko boo yow lay jëriñ <clears throat> boko ko mu boy <clears throat> boko ko mu boy timit du wañi kenn dara du wañi kenn dara du wañi sa borom dara du wañi sa borom dara timit yow rek lay wañi yow rek lay wañi kon nañu farlu ci jaamu yalla bu baax kon nañu farlu ci jaamu yalla bu baax lolu sëriñ bi digal nañu ko ci xutba bi lolu sëriñ bi digal nañu ko ci xutba bi ragal yalla itam ragal yalla itam firil nañu ko firil nanu ko te mooy imtisaalul awamiri te mooy imtisaalul amiri imtisaalul awamiri imtisaalul awamiri wattinaabul manaahi wattinaabul manaahi dafa wax ne ihlam anna taqwa dafa wax ne ihlam anna taqwa ibaaratun ibaaratun عن امتثال الأوامر عن امتثال عن امتثال الأوامر واجتناب المناهي واجتناب المناهي Eh, ragal yàlla mooy def ndigal bàyyi tere yi. ragal yàlla mooy def ndigal yi bàyyi tere yi. waaw ah, ndigal yi bu ñu wax yàlla tax ñu. bu ñuy wax ndigal nag yàlla tax ñuy wax. Ah, def ndigal yàlla yi. ba ndigal yàlla yi. bàyyi yi. loolu mooy ragal yàlla. loolu mooy ragal yàlla. waaw ah, yal loolu dimbali ñëpp nag. yàlla yàlla doole dimbali ñun ñëpp. ne ndigal yàlla yooyu. sëriñ bi wax ne ndigal yàlla yooyu. ay yoon la rek. yoon la rek. yoo xam ne àjjana la jëm. yoo xam rek la jëm. ko ko ku ko soobu foofu la jëm ak moom foofu la jëm ak moom ci leerug Tuuba al awaamiru al awaamiru turuxun turuxun ilal jannati lati muhidal muttaqoon ilal jannati lati muhidal muttaqoon ñu tere yàlla itam ñu tere yàlla itam ay yoon la rek ay yoon la rek boo xam ne safaan ba la jëm boo xam ne safaan ba la jëm waaw kooku soobu te wàccu gi foofu la jëm ak moom kooku soobu te wàccu gi tamit foofu rek foofu rek la jëm ak moom waaw wal manaahi wal manaahi turuxun turuxun ila naari lati waquduha annaas wal hijaara ila naari lati waquduha annaas wal hijaara mu wax ne moom ci boppam itam mu wax ne moom ci boppam itam mi ngi dëkk ci ndigal yàlla yi mi ngi dëkk mi ngi dëkk ci ñi dëkk ci ndigal yàlla yi moom sëriñ bi nee na mi ngi dëkk ci ndigal yàlla moom sëriñ bi nee na mi ngi dëkk ci ndigal yàlla yi ku dëkk ci ndigal yàlla te ku dëkk ci ndigal yàlla dëkk ak moom dëkk ak moom ku tàggoo ndigal yàlla ku tàggoo ndi ku tàggoo ndigal yàlla tàggoo nga moom tàggoo ak moom wax ne ku bëgg am dëkkuwaay boo xam ne mu wax ne ku bëgg am dëkkuwaay boo xam ne <coughs> boo fa toxoo لا ينتقل منه لا ينتقل منه الا الى الجنه التي وهد المتقون الى الى الجنه التي وهد المتقون فليسكن في اوامر الله تعالى فليسكن فليسكن فيها اوامر الله تبارك وتعالى التي هي مسكن الخديم التي هي مسكن الخديم ومن سكن فيها سكن مهي wa man sakana fiha sakana mahi wala yufaariquni xataa yufaariqu wala yufaariquni xataa yufari xataa yufaariquha kon nañ farlu ci ndigal yàlla yi kon nañ farlu ci ndigal yàlla yi moytu tere yàlla yi te moytu tere yàlla yi loolu moo mooy mooy mu dana sëkk wax loolu dana sëkk wax ñu njëkk ña ak ñu mujj ña ñu njëkk ña ak ñu mujj ña loolu képp lañ doon wax loolu képp lañ doon wax ndigalal yàlla ndigalal yàlla mooy jaamu yàlla mooy jaamu yàlla bàyyi tere ragal yàlla ragal yàlla di jëfe ay ndigalam di jëfe ay ndigalam. di bàyyi ay tereem. di bàyyi ay tereem. leerug Touba. gannaaw bu loolu jàllee ñu xam ne itam soññee ci liggéey itam bu baax. gannaaw bu loolu jàllee tamit ñu soññee ci ñu soññee ci ndigal liggéey bu baax. ndax liggéey bokk mooy rafetal jaamu yàlla. ndax liggéey mooy rafetal jaamu yàlla. xalaalan tayiban. xalaalan tayiban. mooy jaamu yàlla. mooy jaamu yàlla. te ci liggéey lañ ko mën a amee. te it ci liggéey rek lañ ko mën a amee. kon ñu ngi soññ suñu bopp. kon ñu ngi soññ suñu bopp. soññ mbokk taalibe yëpp. di soññu mbokki taalibe yi yëpp. ñu farlu ci liggéey bu baax. ñu farlu ci liggéey bu baax. kenn ku ne la yëngatu. kenn ku nekk la muy yëngatu. mu jox ko itte bu wér. mu jox ko itte bu wér. ñun ñi xam ne yëngu ci wàllu tool yi itam. ñun ñi nga xam ne dañuy yëngu yëngu ci wàllu tool yi itam. ñaan sama borom gàttandoo ñu yërmandeem. yàlla na suñu borom di ñaan suñu borom gàttandoo ñu gàttandoo ñu yërmandeem. waaw dafa nawet bu baax bu barkeel. ak nawet bu baax bu barkeel. waaw ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ñaanal suñu kilifa yi di ñaanal sunu kilifa yi ah, sëñ Sidi mi nga xam kilifa barab bi sëñ Sidi mbake mi nga xam moy kilifa barab bi di ko ñaanal di ñaanal Cheikh Mouhamadou muntaha di ko ñaanal di ñaanal Cheikh Mouhamadou muntaha suñu borom yagal leen suñu kanam di ñaan suñu borom yagal leen suñu suñu kanam leeru Touba ñep di balu ak ñep ay jëmu da ngay sax dak ci leeru Touba li yem ci yow dom soñal ñep bu baax ay jëmu ci leeru Touba su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné ci leerug Touba te bu leen faté la cloche